très longtemps régulièrement dañuy jël eu initiative de nettoyer en tout cas nous, ko nous di nga gis que la population a engagement pour trouver définitivement une solution et donc nous moo justifié ce métier. Nous avons également à titre personnel pour encourager les depuis quelques mois nous avons vu une bien meilleure organisation des différents quartiers parce que en fait beaucoup d'initiatives avaient été prises dans le passé nous avons dañuy ñëw opérations. opération mais dafa am le suivi xam nañ que c'est ça la solution il faut l'organisation il faut la sensibilisation dans les prises de parole ce commencer c'est d'abord sensibiliser l'autre aspect c'est que nous ne fait ci am solo ah oui parce que pour liggéey il te faut du matériel mais le matériel pour le pour râteau il y a des poubelles mais il va falloir que ñu am transfert u collecte d'ordure yóbbu ko ba ci camion de ramassage bi donc loolu dafay wone déjà que liggéey bi dana gën a mën a yomb. brigades yi volontaires yi fay taxaw mooy que comme souvent da ngay gis déchets yi déchets liquides yi euh, bu ko gars yi di tuur si day ànd déchets solides ñu ne pourquoi pas leen moo tax mënuñu créer ay brigades yoo xamante ne tey bu ñu ñëwee di ko tuur euh, mënuñu jël segg euh, mbalit bi déchet solide bi def ko si biir si pôle yi de fait que après ñu parce que comme tali bi soriwul te oto mbalit bi day ñëw tous les jours deux fois da koy ñëw. parce que ñun nettoyage yu ñu def nii bu ñu xasee ba pare dañ koy yóbbu si tali bu ñu koy yóbbee si tali oto mbali bi vite bu oto mbali bi bu ñu leen woowee téléphone rek dañuy ñëw wala ku si moom mi nekk si mairie bi nekk gérer affaire environnement moom tout ce qui bu ñu ne ko bu oto mbali bi ñëw bu ñu ko woowee na ko am nañ dese rek da ngay gis automatiquement day ñëw euh, ku si mel ni Mbaye Senghor tam bokk na si mouvement moom dañ koy sant di ko gërëm parce que moom ci ci la nekk mais tam da siy jàpp bu baax kon dama naan vraiment amuñu benn problème xanaa dañuy santaat yàlla bu baax di ñaanal suñu maire yàlla bàyyi ko fi gën a taxawaayam di ñaanal Olivier li mu def nii yàlla bu si yaakaaram tas di wax la jeunesse di leen sant bu baax ku si mel le président Djibi si ginnaaw euh, bañ koy def am na ay ndaw yu dëkk ko ñu jaarawaale génnoon nañ ko def sorti jël exemple na ñun lan moo tax ñu def lii dañoo gis un certain Moussa Diack ak kuréelam li ñuy def mu rafet mu doon comme slogan ñu génne di ko def kon ça veut dire que gars yi ñu ngi koy rey mais nag comme journée bi demee ne nii te dañ ciy profité occasion di sant imam yi sant chef de quartier sant responsable femme gis nañ seen taxawaay sant président de conseil de quartier montagne 6 ak montagne 5A ak montagne 5B b di sant itam imam nekk si quartier yi di sant suñu père suñu papa ku ci mel ni euh, Baye Ibrahima ak Baye Mafane Mbaye gis nañ seen taxawaay maam maire yëpp ñu ngi sant vraiment dañuy ñaaxaat ñoo xam ne des euh, plage bi bu tilimee suñu suñu suñu suñu we suñu suñu feebar la tey ñu aar ko mooy suñu wér gi yaram te aar sa wér-gu-yaram mooy aar sa vie kon vraiment dañuy gën a ñaaxaat gars yi di leen wax ne liggéey baa ngi ni seul le travail paye bañ ciy nekk métti woon na mais gis ngeen ni mu demee te incha allah ñu ngi see waajaat yeneen science ak le maire ak ñi nga xamante ne mooy waa union européenne ku ci mel